pour internet Banlieue Production ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaan bo leen sétané suñu vidéo ba paré ngeen bëss abonné bu leen faté muko ko cloche bi suuf parce que mom moy tax vidéo buñ dugal ngeen jëk see jot bye bye. alaykum yeen mbokk internet yi wé di ñu top fi ci Banlieue Production niñ koy défé sa suné nak tay ji mom ñu ñëw ba Samsam 3 Fek fi ko xamantene bi yakar na ne ken dootu ko présenté Sénégal muy Yaay Fall Yaay Fall mi nga xamantene bi yeen ñi nga xamne ne set yéenay seetlu fii ci Sénégal képp koo xamante ni bi bëgg nga xam say mbir ni muy demee yaakaar naa boo xamante ak Yaay Fall dootoo demati feneen Yaay Fall ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax nga nuyu mbokk internet yi. waaw nuyu naa leen ziar leen di leen jox seen wàccuwaay bu wér di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñëpp di ziar ñëpp. Yaay Fall comme ni ma ko waxee yéen ñi koy gis nii xanaa kanamam da ngeen ko ràññee sax si internet bi ndax foo duggee ci YouTube bi wala feneen boo tàppee Yaay Fall rek ko andil muy soxna soo xamante ne bii lu mu la wax moom yaakaar naa ko dindi balaa ñëw sa liggéey Yaay Fall yow gis nañ ne seetkat yi nekk Dakar kullu seetkat yaa ci gën a doon xale mbir mi nan la la mbir mi moom yaakaar naa ni mu ma dikkee woon expliqué naa ko ci sama émission yu bari ku dugg YouTube boo tàppee Yaay Fall di nga gis sama émission di nga gis lu bari expliqué naa ko ci fu ma dikkee nu ma dikkee lépp wax naa ko foofu noonu parce que comme ni ma ko waxee rek liggéeyal sama yaay moo waral li daal ma tey te ma doonoo ko sama maam bi jur sama yaay lool la te lu bari expliqué naa ko si comme ni nga ko waxee rek nit ki moom looy def war ngaa wax fi nga ko jëlee ak nu mu la duggee mais bul tëb rek na sëriñ laa te tegoo ko fenn te man lu ma wax chaque jour li ma yor ak li may def dama koo teg fu wóor Sama mam bi jur sa da don set wala sa yaay moo doon seet non sa mam mo don set sama mam mo nekkon sëriñ di set. mais sama yaay don doon sëriñ set kan yu bari bari damay gis na ñom dañuy rasta rasta yi rab yi ñoo leen koy def lo wala Rasa ku nekk ak say rasta rasta mom ku jug rasta mais ku nekk ak say rasta euh, man mom sama rasta dama ci am digal motax ma def ko mais nekkul woon dama don rasta non set gi nak tamit dang ci am digal go ci e dama ci am ndigal te nit mënu tëb rek naa damay set damay set damay set te alors que ni amo ci ndigal mënu nek parce que bo duggé ci internet bi bépp wër ka ba daj mel man ma ci nek xalé kon te loolu war na joxe benn exemple lañu jang ci jangat ci lu bare bare bare nek xalé ba pare engagé wona serigne la loolu soko défé amna fu wër foko tek ci set gi comme ni ngay liggéeyee nit bokoy koy da fay déplacer wu ñew wala man nga ko seetal à distance wala. Euh, ku bëgg mën naa la seetal à distance mën naa toog fii nii sama nekk seetal la soo bëggee mun ngaa ñëw yow yaay choisir bu la si neexee parce que nit tukki dama leen di seetal ñu ne Sénégal dama leen di seetal man moom seet foo toog mën naa la ko faa defale léegi ku bëggoon a gis Mame Ndoumbe te nekk Sénégal comme ñu tukki moom mën nañ la gis ci numéro boobu noonu di daw ñi nga xam ne dañoo tukki mën nañ la jot foofu mais koo xam ne yaa ngi Sénégal rawatina nga nekk Dakar bëggoon a gis Mame dem pour gis ko Euh, ku ko bëggoon a gis ku bëgg a gis yaay faal euh, man yëmbal laa nekkoon presque ñu bari yëmbal lañu ñu xam foofu lañ xamee yaay faal foofu lañ daan ñëw wante instant maa ngi sam-sam da waa sam ñoo ma jële yëmbal ani ma sam xëy na nag dan maa gën a waa yëmbal rek xanaa loolu ñoom engagé la ma jëlee yëmbal ani ma sam yàggul sax parce que man yëmbal laa nekkoon yàgg naa fa ñu bari foofu lañ ma xam macha allah yéen ñi nga xam ne yéenay seet comme tey daanaka nit ñu bëri dañuy doon ay nitu simple nga ñëw seetal leen wax leen sarax yu ñuy def mais yéen bu ngeen di seet boo leen ne jàkk koo xam ne rab da koo jàpp di ngeen ko xam. waaw kuy toog di seet ak ñaan te mënoo xam ku rab jàpp ak ku jàppal kon mën ngaa dem toogi ji nga dem liggéey ji leneen parce que affaire seen li ma wax chaque jour rek képp ku koy woote te nekkul ci yow sa bisa ngi lay xaar parce que rab ak jinne ci yam fowuñu fowlooñu ku damay dégg des ñu naan rab amul rab na ku judd am nga rab nit kuy dund am nga rab jinne tamit am na moo tax kon yàlla kon ñoom ñu ngi bëgg a weddi yàlla parce que yàlla bind rab def jinne kon ñuy tuuru ji seeni rab kon kan lañuy ñuy tuuru nit ki da nga xool loo xamante ne logique la nga di ko wax parce que rab am na jinne am na ñoom ñaar ñëpp am ni yàlla bindee nit bind jinne jinne bind malaayka noonu la bindee rab ak lépp parce que yàlla lu mu bind fa bari kenn mënu koo wax mais bul ne amul neen xaw ma boo xamul comme li ma wax neel xaw ma mais bul ne amul. léegi tey boo leen seetalee nit ba xam ne kii moom rab da koo jàpp nga xam ne rab bu soxor la xam ne parce que dañ ne rab moom yëpp am boo xam ne daf lay aar waaye am na bu soxor léegi boo seetaloon tey ku mel ne engagé ba gis ne moom rabam bi dafa soxor ba tey engagé xale bu jigéen bu mu nekkal ba war ko takk xale bu jigéen day rek bàyyi ko ndax da koy seetal ne ko da ngaa am rab ko mu dem wala am nga loo koy faje wala am na tegtal yoo koy def pour mu wér man ku si ñëw sa rab lu muy laaj dan ma koy wax sa rab lu muy laaj dan ma koy wax te loolu laale lay wax nga def ko su ma la si waree faj dama la ciy faj ndax rab bu nekk ak la muy laaj mi ngi mel ni nit rek mais rabam ku ci nekk sa rab lu muy laaj loolu lañ lay defal suñ la ko defalee si kàttanu yàlla mën nga tàggamu parce que faj rab métti na méttiwul daal parce que faj sa moo mel noonu ay secret yu ndaw la ñu ñu ko bëgg a jël taawee ko réyal ko ba mu rëy demeewul noonu xam-xam nekkut ci solin nekkut ci wax fii lay ne maa ngi seetaan fan yee mission bijou bi Cheikh mi jaay ay produits lu muy wax fu wóor la ko teg parce que mi ngi wax naan xam-xam fii lay ne boobu maa ngi toog di seetaan émission bi te xam naa ne kii li muy wax fu leer la ko teg te dafa wax dëggam parce que nee na man du ma sëriñ fajkat laa ma dama bëgg nit ko mel noonu li ngay doon nga ne man lii laa doon loo doon nga ne doonuma lii te nangul ko ko li muy def moom tamit lu lu lu man mësuma kaawoo xaw ma ko mësuma jëndi garabam mais xam naa li muy wax fu leer la ko teg man loolu moom xam naa parce que seetaan naa ko. comme ci loolu la ñuy ñëw tey jamono ji Sénégal bari na ay seetkat yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi xañ na nit ñu bëri sax boo waxee ñu ne wóolatuma seetkat yi ndax liñ lay wax lu ci bëree bëree bëri du am tey ngay seetaan lu mel ne émission plateau télé yi da gis ñoo xam ne dañuy dem bay sacrifier luy dund direct ci ci plateau yi. loolu teg ñu ko fenn parce que loolu dafa ñaaw ginaar bañ nañ ko ba lu ñuy wax rek boo koy rey sax dañ ko jigéen naa la bul xool. dañ koy nëbb sax buñ koy rey ndax suturaal ko mais léegi man Sénégal bi ñu nekk laa xamul ban réew la ban réew lañ nekk laa xamatul parce que nit ñi li ñuy def ëpp na trop trop c'est parce que lu leen neex la ñuy def lu leen neex la ñuy wax te lu mujj fenn man loolu moo ma jaaxal léegi si réew mi lu neex nit lu ko neex lay def lu ko neex lay wax mais kuy defee nu la neexee di wax nu la neexee jàppal ne bis dina ñëw di ko wéetoo boo xam ne doo ko bokk kenn yàlla moo war fajal boppam. waaw loolu yéen fajkat yi doo leen dem ba mu tiital leen parce que tey nga toog di seetaan seen morom yi ñu nekk tey ci rajo yi wala ci télé di def loo xamante ne bii leer na la amul du dem ba yàq seen métier bi. waaw parce que bu nee sëriñ danaa yéen ñëpp a yem dañuy maasale nuun gi danaa ñëpp a yem man jàpp naa ne man ba ma defee ba ma dalee def émission ba tey mësuma tudd benn sëriñ tooñ ko te pourtant ñu si bari damaa nekkoon ak ñoom di liggéey man duma xepp xeeb xam-xamu jàmbur duma ko tuutal parce que képp ku ne sëriñ la. même lu mu ndaw ndaw am na lu mu xam bu ko xee ba daal mais nan ko rafetal liggéey bi ñu rafetal ko moo am solo mais toog ñu naan la lan mooy xew suba ngay xalaat ci sa xel di wax loolu teguñu ko fenn nit ki looy wax na nekk loo xam ne lu wóor la mais bëgg buzz bu mu tax ngay wax loo xam ne tegoo ko fenn buzz yaa koy liggéeyal sa bopp mais bul fekk am buzz ngay bëgg a dem te la ngaa mu si moom pour am buzz nit ku am dingité ak personnalité du def noonu man kenn mësumaa gis ma dugg si débat jàmbur wala ma tudd kenn ku def leen non non du ko def man samay waxi bopp laay wax sama liggéey laay wax su ma waree am bës comme ni gars yi wax ba nga génn ñëpp xam la day fekk man maa ko liggéey sama bopp mais du ko wuti ci kenn. macha allah léegi ñu dem tey jamono ji ñu toll nii maam euh, réew mi bari lool ay problème nag ay jafe-jafe ñu njëkkee ci loo xamante ne bii lu mel ne mbirum aadamo tey koo xam ne dafa nekkoon doon xaawi sutura doomu aadama yi yéen seetkat yu bari xañ na boo leen ko xamul it di ngeen dégg turam mu jékki-jékki rek mel na moom dafa xaawi sutura am Sénégal yëpp di ko seetaan ndax loolu tamit rab mën na ci pousser doomu aadama bi waxal na ko boppam man dama na moom kenn du fukkal leen mm-hmm. mom mo xolal bopam defal ko bopam si comme lu mu wax kenn def ko dara mom mo xolal bopam def ko man dama koy setan mais awma mom ben affaire mais dañuy wax nan kuy def lu ya yag yag lu bax nga am wana def tu lu bon mbokk yee lay wori rek bis buñ tassé si yow lañ dem si direct adna ku ci nek def lu bax jappal ne chaque jour lu bax nga am mais kep ku ci nek def lu bon mu yeex mu gaaw force bala ngaa dee fii nga koy gisee man li ma wax saa su ne rek nit ki moom moomu comme li ma la rek tudd sama tur xaw ma xaw ma ko ma ko tooñ mais lu ma bëgg mooy na gën a changé daal defaraat tooginam parce que àdduna mosoo lépp day yeex parce que kilifa yu baax yëpp kenn nekkul fi li ñuy wax rek ñu dem nekkul seen yaafu sa tax ñu dem ñun ñuy toog nekkul suñu jàmbaar moo tax ñu toog fi ku matal da ngay dem ku dul lu ma daan wax keroog sama émission bi ku dul xalaat dee lu la neex defal chaque jour loolu laa wax man du ma wax toujours du ma tooñ kenn wante su ma gisee sama lu baax dinaa la koy conseil parce que moom dafay am ñu bari ñu muy tudd naan leen a bëgg konte ñooñu war naa xool si ñoom ba yenn yi du ko def sax parce que doomu jullit la doomu nit ku yiw la am na waajur am na lépp na na daal lu baax a baax a baax moytu yu baree bari bari ndax àdduna lépp day jeex comme ma koy fàttali rek yéen ñi nga xam ne yéenay wéy di ñu topp fii képp koo xam ne soxla nga yaay Fall mi ngi fii caaro yu tali karo sam-sam 3 tali karo ku fi ñëw rek boo ñëwee ba ca jumaa ji rek di nga gis yaay Fall bu soobee yàlla surtout boo wootee ci numéro yooyu di daw ci barre d'écran bi waaye yaay Fall dañuy ñëwaat encore tamit réew mi nekk na réew moo xam ne jamono ji ndaw ñu bëri dañuy faatu surtout ci internet bi ñuy wax ne loolu ay sacrifice la wala rab ko confirmer tamit kenn sacrifice leen parce ak làmmiñ moo gën a garaaw sëriñ te nit ñu xamuñu ko gis nga nit ki ñu bari cat moo leen dëj mënuñoo dem fenn ñu bari waroon a tekki cat moo tax mënuñoo dem fenn fu ñu toog la ñuy toog ndaxte yow dama seetlu léegi jamono ji léegi seen néeg sax ak sa lépp ci internet bi lay dem ñu bari suñuy lekk ñu ngi vidéo bu ñuy reer ñu ngi vidéo booy denc nit ya sa armée ba sax ñu ngi koy vidéo loo mënti def amat nit ñi léegi amatuñu secret seen biir lépp ñu ngi ko tasaare da ngay gis sax ku nekk en état mu ngi koy vidéo balaa muy am doom mu ngi koy vidéo te loolu baaxul bët yëpp yemuñu làmmiñ yëpp yemuñu ndaxte bul xam ñaata nit ñoo lay seetaan te nit ñi lay seetaan yëpp yemuñu moo tax nit ki soo demee internet dama jàpp ni soo demee comme ay tiktok yooyu nga koy def dangaa war a def loo fooloo nit ñi di reetaan loo nit ñi di dindi stress nit ñi mais pas nga see wane loo xamante ni normalu mais jamono ji léegi pour nit am bës ñoom jàpp nañu da ngay génn wax lu ñaaw def lu ñaaw pour ñu xëy di la débat man de ñaanuma yàlla mel noonu te yàlla bu ma ko mel tey ñu nekk ci réew moo xam ne tamit li ma li ma wax sànq comme euh, élection moo fi jàlloon waaye élection yu bëri woon na coow lool yow xañ na doo wax si élection waaye am na loo xamante ne bi mu ngi bëgg ñëw xañ na dañ la ciy laaj lu mel ne li am ci élection yi nga xam ne tey parti bi nekk ci pouvoir perte na ay département yu bëree bëri ci Sénégal loolu signal la ci ki toog ci ci réew mi wala moom bu defar waatee dina fi des. du si wax. parce que xam nga moo du ma si wax. Mm-hmm. li ma wax toujours lu may gis lu nekk du man damay toog si média yi di ko wax. déedéet ku ma intéressé boo ñëwee ba si man ma wax la ko. Mm-hmm. mais toog naan lii wala laa. Mm-hmm. man duma def loolu. parce que mun naa nekk loo xam ne sa dama koy gis mee du tax ma wax ko. parce que xale bu ndaw laa demaguma fenn. talagu talaguma ko ma tojal. xale laa daal tolaguma ku ma tojal macha allah balaa ñuy tëj tamit dinañ wax ci beneen actualité xaw ma ndax di nga ci waxam déet parce que Sénégal dafa toll ci jamonoy Coupe d'Afrique ñu koy ñaanal yàlla moom mu jël coupe bi andi ko fii waaye bari na ay sëriñ yuy génn ci ko ci ci ci ci TikTok bi am ñu waxoon ne Sénégal du dugal bii du dem quart de finale am nañu waxoon ne Sénégal dina dugal bii dina dem quart de finale tey sëriñ yu bëri yooyu di génn di wax ci compétition bu mel nii nag xanaa loolu wax xam nga loolu. Mhm. dafay wàññi pouvoir doomu aadama. Mhm. parce que dama cee gis sëriñ soo xam ne. Mhm. ay sëriñ la bu la bëggoon a rey suba doy leen xëy. te dañoo mën. mais dañoo daanu si benn côté. parce que affaire yi bu si du si du xuus ba ëpp daal. donte sénégalais nga ñaanal leen yàlla rek. ñu jël coupe bi bu la neexee mën nga wax loolu. wante bu si dugg naa lii la ñuy def ak. lee la ñuy def ak déedéet. nit ki. luy sa liggéey wax ci la sa nekku sa yoon sa yoon nekku ci kilifa da ngay xam ne kilifa nga mhm. man xëy na yàlla moo dogal ma nekk si média bi wax parce que mhm. rajo Ndella Madior moo ma booleeg média mhm. ne naroon naa liggéey ba dee du ma génn sax si lii mais sagam dañoo tombé foo xamante ni am na ñoo xam ne bëgg nañ ko leeral seeni mbir xamuñu ko moo waral ma génn aussi nit ñi ñoo naan ma génnal génnal pour ñu la xamul xam la wante Sénégal la maa leen di même bu ñu ba final sax sant yàlla la. parce que coupe bi moom. Mhm. kilifa si waxoon moo tax man du ma si débat du ma si wax. comme niñ koy waxee rek yéen ñi ñuy topp fii ci Banlieue Production ku koy seetaan di nga ci faral di gis Yaay Fall mais Yaay Fall duñu ñu tëj mukk te laajuñ la tey bu fekkonte ne am nga loo xam ne yow bëgg nga ko développé ci émission bi wala war nga ko wax ci émission bi loo xam ne ñun laajuñu la ko lan lay doon. ci émission bi waaw. maanaam ci sa wàllu liggéey wala leneen loo xam ne bëgg nga ko leeral Sénégalais yi te ñun suñu question agul foofu. sama liggéey moom comme ni ma wax saa su ne du ma nekk naan lii laay faj wala lee laay faj mais lépp loo xamante ni day faj doomu aadama man dama koy def comme li may wax chaque jour ki nga xam ne dafa wër ba tële man kooku laa gën a soxla te doomu aadama yi nan rafetalaat seen toogaay parce que dëkk bi su ma yeboon dama naan dan koo salfaañe affaire yi léegi rafetalatuñ ko dara nit ñi man damay baar sax su ma duggee si internet lu nekk ngay gis dangay gis euh, kel dama dugg YouTube ma tàppee gis ñu taf photo sëñ bi ak yeneen photo yoo xamante ni rafetul si mhm. kilifa loolu tamit war nañ ko moytu bu baax a baax a baax lii fi ñu teg suñ tànk nii di def lu leen neex di wax lu leen neex ku génn sax wax lu baax muy kilifa diine mhm. ñu daj la sa ànd teguñu ko fenn te fii réewum diine la mhm. réewum lislaam la ñu baax ñi ñëpp fii lañ leen tëddal kon ñun dañoo war a sellalaat tey doxal man xale ay moroom mais la tax yàlla tànn ma def ma nii loolu mu neex suñ borom la neex mais doomu aadama bi bul yàkkamti dara parce que ñu si bari alal ñoo tax ñuy def loo xamante ni jara ko doomu aadama bi yàlla bind si yow na di nga si jot balaa ngaa faatu di nga si jot kon bu ko yàkkamti ndaxte dee lu ñuy wax day bette mën mii di wax sa fii ma wax mën naa fay toog dee su ma defoon lu ñaaw fii laa koy wàcc des te kuy dee lu dul perkaal bi ngay sàngoo du la topp kon sa àdduna rafetal ko te sa àdduna bul ko jëndee sa àllaaxira ndax àdduna day jeex rawatina nag ni nga xamante ni man lu ma wax chaque jour man yaay du ma def lu ko alal jaralu ma ko dara jaralu ko sama liggéey bi dama see gore di ko sellal chaque jour mën na wala mënul fekk ma fi ma ne su boobaa naa la wax loo xamante ni ba nga juddoo ba tey nit masula ko wax man damay seetal nit loo xamante ni am na 10 ans ferme Mm-hmm. man ma wax ko mun na nekk tey mun na nekk suba mm-hmm. yow loolu mën nga ma ko confirmer parce que démb ma ni waxtaan téléphone am na lu ma su guddi na loo ma wax amul problème <laughs> léegi nag xanaa nag maam nag du ñu tëj nag léegi li moom seetloowuma la mais dama ne la comme Sénégal nag tey dafa jëm ci jongante xanaa nag maam dina nañu nag sarax bii baax na ci kuy uti sarax bii waaw ñoom ñoom am nañ seeni sëriñ nan leen wax seen sarax man man doonuma seen sëriñ wante dinaa leen ñaanal yàlla. sax sax parce que sénégalais laa. coupe mm-hmm. bi tey bu fi ñëwoon. Mm-hmm. man euh, du ma si du ma si mucc keneen du si mucc comme ni ma ko mën a waxee parce que mm-hmm. xéewal la daal. kon dama leen di ñaanal yàlla fan bëgg egg. yàlla na leen fa yàlla eggal. lu baree bari nag dama koy gis si ay nit. mais du ma tudd tur parce que boo tuddee tur nit tey mel dangaa bëgg buzz mais ki nga xam ne moom la Sénégal gépp jox dafa bëri muy Sadio. waaw. Mm. na gën a defaruwaat parce que ni ñu wax rek ku ñëpp tifli nga tooy. bëgguma sa tudd turu nit. parce que day nduru leneen la. mais na gën a defaruwaat parce que mm. gars yëpp moom lañ gën a marqué ne ñeneen ñi. Mm-hmm. moo si gën a siiw mm. moom lañ gën a gi konte na gën a defaruwaat bu baax a baax a baax fi ñu bëgg a egg nag. yàlla na yàlla jàppale ñu egg fa si jàmm loolu rek laa leen koy ñaanal chaque jour te sëriñ si nga xam ne ñu ngi si internet bi ku jug tudd sa morom naan ko xamoo dara mënoo dara nan bàyyi loolu parce que ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj ñun buñ xeebantee suñ biir xastante suñ biir kon ñun kan moo ñuy dooleel te ñun ci suñ biir ñoo war di nangulonte man xeebuma benn sëriñ xasuma benn sëriñ mais nan bàyyi xeebante bi ak xastante bi nag ku nekk ak li la yàlla may doomu aadama yi bëri nan euh, mais tamit xam-xam yi wute nan nan koy rafetal da di ko sellal man demaguma fenn eggaguma fenn donte maa ngi si internet bi sax mais damay ñaan yàlla toog fu gën a kawe fii mm-hmm. di dimbali ndaw ñi nga xamante ni seeni xel lëndëm nan ñu si bari ñàkk ay conseil la mais donte xale laa nag duma dara mais am naa sama xel mu rafet mu may waxee waaw képp ko xamne na waxna wax su la déranger mang la koy djéggol xamne doom adam mo moo matul mm. mais lu rafet ak laa si jublu man chaque jour dama koy rafetal ba kérok may dé ma sha allah yeen ñi doon wéy di ñu top fi ci banlieue production li ñu koy waxee sa su rek di len fi xaar yaay Fall parce que xamna né ne dinay ñew di ñëwaat di ñëwaat di ñëwaat yaay Fall ñu ngi lay baye nga tagutu ñi lay seetaan waaw muy ki mo war na jiital bi ñaan ñi ma taq yaakaar na rek jiital na len ci lepp Serigne Touba Cheikh ibrahim ñoo jiitu ci lepp waaw sama lepp mm. ñoom la jiital sama lepp ndax ki dama ko bëgg te duma ko booleeg leneen ndax sëñ Bàmba la ma waxoon bëgg leen Cheikh Fall ngir lim ma bëgg baa ngeen bëgg Cheikh Fall ngir bëgg ma bëgg konte nan bëgg Serigne Touba ndax Cheikh Fall waaye Cheikh Fall lañ koy bëgg ngir Serigne Touba benn lan du du ñaar daal waaw man chaque jour dama koy tiitaroo di ko baaxoo di ko namoo man ñoom laa bëgg parce que li ñuy wax rek olof Njaay nee na ragal féete day xañu wërsëg man ku dul Serigne Touba Cheikh Fall bëgguma la. kon ñoom dong laa bëgg sama àddina. di ñaan yàlla kilifa diine fi ne kilifa aada yi yàlla na leen fi yàlla bàyyi yokk seen fan gudd fan lool lool lool lool sëñ Muntaxa maa koy ñaanal mu dem ba Rahman Mbàkke dundam am na njariñ lool si réew mi ndax mu ngi defar lu baree baree bare bare. di ñaanal sama yaay mi nga xamanteni sama lepp la gudd fan ak wër ba mu fekke sama jariñ ba ma teral ko comme nit ñi wax yóbbu ko màqe jënd ko kër ak auto saral xolam ci barki Cheikh Fall diko ko ñaanal sama papa mom tamit ndax li ma xal ju dama am yaay ju baax am papa ju baax am mam ju baax bok fu baax man sama dem ma sama bopp wante xol bu rafet la aw mo ben problème aduna ñepp la yena jam kep ku ma lu bon man yalla na ci jitu man yaay Fall jàmm rek laa yéene nit ñi kun na yàlla na yàlla fay sa xol nga tiit boobu dangaa deful lu baax man yaay faal yàlla na ma yàlla fay sama xol te képp koo xamante ni am nga aajo mu nar a faju yàlla na ma yàlla boole kooku ku mën a ta faj sa aajo yàlla boo ma xam si barki Cheikh Fall parce que jóguma pour nax nit lekk xaalisam wala dara déedéet ndax alal dafa sax si xol te nit ki nu mu def ba liggéey xaalisam xamoo ko looy def nay lu jub nay lu wóor si kàttanu yàlla daal maa ngi ñaan képp koo xam ne sa aajo nan na fajoo si man yàlla nga ko xam te site bii nag jàpp leen na mooy sama site comme ni ma ko waxee rek fu ma defee émission rek sama site la incha ba yàlla dinu dégg site télé yeeg ñu dem fu ne si kàttanu yàlla mun na lu ne daal di ñaanal ñëpp jaam di ñaanal président mi nga xamante ni moo fi toog lu ma wax rek faraluma kenn mais dama xamante ni dama gis ne ñu bari Mm-hmm. yàkkamti nan mu jóge fii mm-hmm. waaye man gisaguma ko ko fi mm-hmm. faraluma kenn de damay wax lu leer mais ku fi taneegul Macky man gisaguma ko te Macky kilifa la xëy na nag après lañ koy xam man faruma fenn comme ni ma koy waxee mais gisaguma ko ko fi jaajëf kon ni ko waxee farul fenn waaye gisagul ku ko fi tane ñu doon wéy di ñu topp fii ci banlieue production mu nekkoon yaay faal li may wax nag ne képp koo xam ne bëgg sa aju fajo yàlla dina fexe nga xamanteeg moom comme ñu fàttali ko rek mi ngi fii sam-sam 3 ci tali karo bi ku ñëw ba ci jumaa ji rek boo ko woowee incha allah dina la gindi ci numéro yi daw ngeen koy jote ñuy jaajëfal Serigne Ron Saliou mi nga xamante ne bi moo nekkoon ci caméra bul fàtte cloche bi suuf pour jot notification bu la vidéo bi neexee ba 16